donc euh, ñu euh, ñu ñu jaajëfal ko bu baax a mhm. baax moom Laye Pythagore euh, nekk ca diaspora ba plus précisément ca Suisse donc pour revenir un tout petit peu ci li nga xamante ne ni doon nañu ko waxtaanee mu di procès bi nga xamante ne ni moo ngi wëyandi fële ci tribunal des grandes instances bu Ndakaaru soxal la réintégration de du leader de l'ex Pastef ci liste électorale yi Adama Fall Adama Fann Adus nga nekkoon ci fu am solo. waaw xam nga xam nga dafa am loo xamante ni tribunal moom noonu lay doxee. Mhm. maintenant soo duggee biir tribunal kenn du fa wax aspect politique. Mhm. ay faits la ñuy te su ñuy juger ay faits dañ koy teg ci ay textes ak i loi n'est-ce pas. Mhm. Euh, est-ce que condamnation bi valable na est-ce que procédure de publicité bi yëpp respecté nañ ko. su que respecter nañ procédure de publicité la radiation reste définitive parce que aussi li ñuy war sénégalais si mooy suñ jugé par contumax, nous condamné la par contumax, la radiation est définitive c'est-à-dire définitivement d'autres nekk ci fichier électoral bokk définitivement Moi, madame, électeur fichier électoral dootoo fa nekk dootoo nekk conseil municipal dootoo nekk que ba keroog ngay génn pour une ba ngay su nekkee radiation condamnation par compte max la loolu la loi bi wax. maintenant su nekkee procédure de publicité bi yëpp respecté nañ mm-hmm. la loi de dal ci kawam radiation bi day définitive. su nekkee procédure de publicité bi respecté wuñu le juge va demander sa réintégration ba ñu respecter procédure de publicité parce que le jugement par compte maximum su daanoo amul appel bu mu def radiation lay andi que mu leer. procédure de publicité boobu Fall kan moo ko war a kan moo c'est le greffier qui doit le faire. c'est le greffier qui doit écrire le truc affiché au niveau du tribunal yóbbu këram ñu affiché affiché au niveau de la mairie de Ziguinchor ak yooyu yëpp. Mm-hmm. mën na mën juge bi mën décision de radiation bi. Mm-hmm mais après procédure de publicité continue. day continuer procédure bi continuer de publicité bi su continuer ba respecter les normes la radiation continue parce qu'un jugement par un jugé par compte maximum c'est quelqu'un qui doit être radié sur le sur le mm-hmm. sur du fichier électoral mm-hmm. lolu mom lolu le code électoral wax su nekkee dañ la condamné pour pour diffamation pour six mois affaire mm-hmm. la radiation c'est pour cinq ans décision définitive définitive la radiation c'est pour cinq ans mm-hmm. mais compte maximum, la radiation est définitive parce que nous juger par par max quelqu'un qui un max, c'est quelqu'un qui ne respecte pas la justice de son pays c'est quelqu'un qui a maintenant dañ ko ne où c'est ça qu'on appelle un mon mu lànk mm-hmm. te su ñu jëlee sur le cas de Ousmane Sonko les plus ko li ko dal yëpp comment ça moo ko parce que moo ñu fi l'affaire là c'est un complot nous ñu le tribunal nous vous dit c'est un complot Si nous donc moi j'attendais à ce que tribunal il a préféré partir à Ziguinchor pourquoi le tribunal ah mais ce sont ses avocats Mon avocat hmm. s'il doit rendre ou pas. parce que Sonko décision. non également ba nga ubbi procès ba nga wax askanu Sénégal ne leen lii complot la mm-hmm. te suñu demee tribunal dinaa leen won ni complot la ah, est-ce que vous savez que Ousmane Sonko kon avocat yi tooñ nañ ko ah, xamu tax parce que il a été jugé à son absence mooy contumace waaw waaw mais en son absence mais c'est voulu par ses avocats c'est une erreur C'est mais erreur. une erreur très grave stratégie bu ñu la. léegi nak ne mhm. quelqu'un qui est jugé par Compte-Max est radié définitivement du fichier électoral. parce qu'on te considère comme comme comme non absent pas présent. nest kon ay avocat su nekké stratégie la rek ay avocat togn nañ ko ay avocat am nañ ko parce que suñu maintenir décision bi ba radiation bi nekk définitive mhm. mais Ousmane Sonko ne pourra plus être chef de quartier kon ay avocat am ton nañ ko. kon li dal moko tek bopom boppam. Mhm. c'est-à-dire lool moy deug su mhm. nekké stratégie la ay avocat ñoo leen ne bul uyu di demal Ziguinchor dem tok ah bien sûr mais tooñ nañ mais ah, kon nak tooñ nañ ko. en tout état de cause mom Ousmane Sonko amul fit a waxtan nak ay bokkam waxtan nak ay avocat stratégie bi ñu ne ko bul dem ñom ñok mais kon erreur la. Ah, soxna si ah, mais mais advienne que pourra ñom ñoko ko def kon nak, loolu tax ma ne liko dal moo ko teg boppam mais est-ce que également nekul erreur bo xamante ne nii moom si boppam waru ko won nangu du moom waru ko woon nangu génn na wax nit ñi ne li ñuy wax ni complot la complot la suñ demee tribunal dina leer Dina dinaa won donc Dina leen won ni complot la c'est-à-dire aujourd'hui aujourd'hui dafa waroon toog une erreur de sa part de sa part c'est-à-dire xam nga xam nga man nit day juum ñun nit man man gis nga gis nga man luma sama avocat mëna wax man lañu jiñaa jiñuñ samay avocat seetal sa der sax non attends ah. man jiñu sama avocat de man suñ ma jiñoon tey lenn ay crime yoo xamante ay crime la man jiñu sama avocat ah. mm-hmm. man lañu jiñ mm-hmm. léegi nag man mu wóor ma ne lii ñu ma jiñ complot la defuma ca dara damay taxaw tribunal ba sénégal gi yëpp xam ni taxaw naa tribunal man duma déglu samay avocat ñoom dama leen di fay pour ñu défendre ma dañuy ñëw taxaw ma won askanu sénégal ne leen lii ñuy wax dara du ci dëgg su Boba compte Voilà. am Voilà. su Boba, radiation définitive du ci mm. parce que même si on est ko réintégrer sur le sur la liste électorale. Mm. sur les listes électorales. suñu défaté procédure de de publicité bi radiation définitive day am. munu mm-hmm. rëcc ci radiation définitive parce que contre Max la donc mon côté de boppam. radiation définitive du élire du. c'est-à-dire conseil municipal c'est-à-dire conseil municipal ça. doo toog doo ko nekk. lourd. c'est-à-dire quand il pose cet acte là ces avocats ne savaient pas ça. ah mais ces avocats avérés de ñoom ak mais c'est une erreur. C'est-à-dire, tu as des ambitions pour ton pays, tu as des ambitions pour, ta, pour, ta, pour ta région, pour ta commune, pour autre. Yo, tu sais que si on l'a jugé, dans la par contre max yow da nga dootoo ambition yoy nga am day furaas mais est-ce que di nga nangu tomber dans le piège des des des avocats qui ne sont pas des politiques qui sont dans autre chose. mais donc si pensez que les piège le bumu mu tomber si avocat ami quand même. Adama Fall Adus donc bu fekkee radiation elle est définitive donc euh, poste maire qui euh, maire bi. nga attention attention avant qu'on la radie. il il était maire d'accord d'accord. il était maire avant qu'on la radie. Mhm. est-ce que parce que la loi n'est pas rétroactive. ah ok loi du dellu gannaaw donc prochaine élection locale tànk kanam rek la am tànk kanam la am prochaine élection mais mënul parce que dootul nekk ci fichier électoral mënul bokk ku nekkul ci fichier électoral saa ay mënoo falu mais mandat bi mën na ko wëyal oui parce que la loi du, du dellu gannaaw ah, ci li ma jàpp la loi n'est pas rétrogative donc poste bi nga xam ne moom la am dañ ko koy bàyyal mais lii mu nekkee wax dëgg si yàlla man damaa jàpp di moo ko teg boppam ñaari caa yi ko dal yépp ñaari cas yi ko dal yépp moo ko teg boppam benn bi moo ne sénégalais yi lii complot la suñ demee tribunal dinaa leen wan ni complot la. te wallaahi fa laa ko doon xaar man. yow foofu nga ko doon xaar. oui kii si oui pour montrer la population sénégalaise que lii complot la. mais man man man man dama jàpp ne Ousmane Sonko amul fit. ak dayo bu toll ne bu bu toll ne wax ak sénégalais yi ba pare waroon a dem may ma tuuti waxtaan na ak avocat Ousmane Sonko ak lu mu munti doon ah, weesuwul moom laa lu mu waxtaan bàyyi ma terminé fit weesuwul yetaa <coughs> mhm. nga toog ci conférence de presse ne benn ministre buy wax mhm. détourné na fi 22 milliards ñoom dañu xamul ni on a tous les documents nga dem toog ci meeting ne ci internet laa ko gisee fit weesuwul loolu. alors euh, li ko dalaat aussi su dans l'affaire Mame Mbaye Niang moo ko ah, ko ci yoon loolu kay yóbbu moom laa wax moom moo ko teg boppam. Ah, c'est-à-dire kilifa gis nga kilifa boo soo bëggee jiiteem réew nga nekk kilifa nekk un leader. Mm. tey da ngay dégg coowu vingt neuf vingt vingt million d'euros yi. Mm. baatu. Cheikh Yérim fi mu àgg. Mhm. baatu Adama Fall àggu fa. d'accord même su nekkee Adama Fall yag nako wax. donc li Cheikh Yérim meuna wax nit ñi dégg ko mu yàq lu bari. Mhm. bokku lak li Adama Fall meuna wax. d'accord motax tax Cheikh Yérim waxé la coow li dans l'affaire des euh, de de 29 milliards. Mhm. nit ñaa ko doon supputer coow li wul dé mais bam ko waxé la coow li gën a parce que batam fu mu la. baatam su nekkee nag yow yàlla daf la jox baat ngay war a àgg baat ci kaw a kawe kawe kawe doo wax ci lu léger lépp looy wax da nga ko war a teg ci cus cëslaay alors aadama dinañ ci euh, dellu si waat on nous signale du côté de la régi que mm. am na au niveau de la diaspora ku bëgg a intervenir euh, ci euh, émission bi ñu jël ko allo